Euh, maa ngi tudd Awa Mbodj coordinatrice euh, du mouvement des élèves étudiants du Golf Sud. voilà ndax mën nga dellu si li nga xam ne moom mooy sunu tey jotaay bi. waaw salop ndaje bi tey moom mooy wane ban place la jeune yi am ci élection yi ñu jublu parce que dafa doon élection ya nga xamante ne élection yu am importance la parce que local yi ñu jëm moom mooy définir législative yi ñuy jëm moom mooy définir aussi présidentielle yi ñuy jëm parce que bu sa base dëgëroo ci élection locale ça veut dire que ne pour nga demaat législatif day xaw a metti donc il faut ñu ñaax jeunes yi ñu am benn taxawaay bu am solo ci élection locale yi loolu moo waral salo ndaje bi tey. waaw gis nga ni ngeen ne ngeen taamu ci ndaw ñi seen politique ci ndaw élection ana lan ngay waaw parce que ñëpp xam nañ ne politique jeunesse moo koy def. Nous jeune pour mu c'est très difficile responsable responsables sax dañoo soxla jeunes pour nous dire que ci politique bi ñuy donc jeunes aujourd'hui jeunes jeunes conscients de le du développement de leur département de leur commune Nous avons d'ailleurs di pour place réellement le jeune yi jouent jouer ci élection locale yi élection locale dañuy dem porte à porte di def ay euh, thé débat di def ay journée de sensibilisation ay caravane donc il faut que jeunes yooyu nga outiller len parce que politique buñ jeunes en général li ñu jëk xalaat ci politique moy saga moy sanni xéer donc il est temps de conscientiser jeunes yoy wal len l'avenir de demain je ne dirais pas que c'est la c'est la jeunesse mais dañ la jeunesse partenaire aujourd'hui là, donc il faut que responsable boole jeunes yi ci lépp lu ñu mën a def loolu moo waral ñun ndaw ñi ñu daan ne duñ xaar sax ñu ñuy woon parce que géejawaay bu baaxee ñun ñëpp la baaxal mag ñi seen wàll mi ngi wëy ñun ñoo ci des donc il faut que ñun ñu conscient xam ne géejawaay moo ñu ñor loolu moo waral ñu taxawal lii di woo aussi bépp jeune que ce soit du parti de la partie civile ak jeune ba nga xamante ne sax politiqueul yeneen parti yi ñu xam ne politique du saagante du xastante du waxante lu ñaaw mais politique buñ koy wax c'est l'art de bien gérer la cité. waaw nga naan l'art de bien gérer la cité sax tey boo weesoo ndaje bi yan tànk ngeen fas yéene tegaat ngir mën a gën a ngir ñu dem jëli seen carte ngir mën a jàppale. lii on peut dire ne ce n'est que le début commencement. travail bu bëri mi ngi xaar sur le terrain déjà jeunes yi soog a am 18 ans amaguñ carte d'identité nañ lañ leen di conscientiser bañ dem am seen carte d'identité mais aussi doo yem rek ci am carte d'identité mais aussi vote ji parce que vote boobu si ngay amee baat bu sa maire doxalee ci ngay am droit wax mais boo votewul maire bi bu doxalee wala mu ñàkk a doxal doo wax parce que ba ñuy vote yow da ngaa toog préféré toog donc il faut que nous conscientiser jeunes surtout les primo-votants Nous devons inscrire sur les listes électorales mais aussi pour nous devons voter pour nous participer au développement de notre cher département. bon tout d'abord nous remercions remercier responsables responsables département en commençant par le maire des maires le ministre de Guédiawaye le maire Alain Sall le ministre Nen Fatoumata Tall le maire Racine la DG Khafour Touré, Mamadou Mamongom, l'infatigable Mam Ibraba, euh, Ablaï Diagne, qui est coordinateur maire national, au niveau national, elle est, il est un peu souffrant. Bon, nous avons tane ak jàmm di remercier tiongan mi jógee ba présidence de la république qui def ci une exposé bu am important ñi ngi remercier coordinateur des différentes communes que ce soit de la cogère ou du maire. Nous remercions encore une fois de plus les élèves et étudiants de toutes les communes. Parce que sans nous, nous ne pouvons pas. Nous dans la main, nous gagnons. Merci.